sagar yu xonq yi ci loxo yi ci baat yi ba ci bopp yi ñoom ñi di ndawal kër docteur di wane centre de santé bu Bambey foo laal day mitti ñoom ni le lii la ñuy njëkk a yebbee ci seen ab ci nag njàmbat nemmeeku nañ ko jamono yi nii mu am si district sanitaire bu Bambey yooyu ñu jàpp ni ay recrutement politique la ay recrutement parce que dañu gëm ni su nekkee ni tey dañuy defar am na ñu nga xamante ni ñu ngi ci système bi yàgg nañ fi def nañ fi ñii def nañ fi ay fukki at ak juróom ñii def nañ fi ay ñaar fukki at donc ñooñu tey jii nii euh, même bu ñu amul diplôme am nañu compétence parce que de par la pratique ci pratique bi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee am nañ ci tey jii lu nga xamante ni euh, am nañ ko ci acquérir nañ ko ci mu nekk ay compétence kon ñooñu jàpp nañu ne euh, tey ji kenn gënu leen yellool si recrutement yooyu ñu defal leen ko. ñoom day lañ xamle rek moom moo di ñii nga xam ne ñooñu la ñuy nekkuñu ñu qualifié. jàpp ne nag tey ministère de la santé comme ni ñu ko waxee su amee ay contrat yu mu war a joxe am na ay personnel qualifié aussi yu fi nekk am na ay infirmier am na ay sage femme euh, am na ay technicien am na ay médecin yu nga xamante ni nii ay chauffeur yu nga xamante ni nii tey ay comité ñoo leen di jël en charge loolu nekk ay charges yu méttee métti si comité yi ba nga xamante ni parfois sax dafay dafay nasaxal liggéeyu comité yi ñu jàpp ni kon ministère su amee ay contrat yu mu war a joxe ñooñu ñoo ko gën a yelloo ñooñu ñoo ko gën a mérité loolu nag comme ni ma ko waxee en tout cas lu ñu nangu district sanitaire bu Bambey suñu naataango bi wax na ko léegi nekk genre décharge mbëbës wala ay site bu nga xamante nii ay responsable politique dañuy caser foofu seen ay militant kooku duñu ko nangu yokk si ne seen plateau médical dara baaxu xoolee si wàllu lu jëm si plateau technique bi on a district bi am na problème mu bloc problème mu bloc bi nag ñu ngi koy kaas boobu ba léegi ñu ngi koy wax district sanitaire bu Bambey dafa yaatu parce que lu tolloog fanweeri poste de santé ñoom ñoo bootu si centre bu nga xamante ni centre de référence la centre de référence bu ñu ko waxee mooy poste yi poste bu nekk boo amee malade bu la jaaxal foofu nga koy yóbbu mais foofu ñu koy yóbbu tey jii nii war na am benn benn plateau technique bu fa nekk bu nga xamante ni nii malade bi bu ñëwee foofu di doon jafe-jafem dinañ ko saafara mais malheureusement lu ñu gis mooy malade yi dañuy ñëw foofu rek après pour jàll njaareem bu nekk ay tolof-tolof nekk ay jafe-jafe ci ñuy faj nekk nekk tolof-tolof nekk jafe-jafe aussi si population yi kon ñuy wax ministère ñuy wax aussi euh, euh, le président ak son premier ministre que nañu jàppale district sanitaire bu Bambey aussi si bloc boobu noonu nga xamante ni depuis mille 2023 waxoon nañu que travaux yi dina démarrer également aussi le problème de la rajo rajo bi aussi gis nañu ko moom tamit depuis quatre ans Bambey centre de santé wu Bambey district sanitaire wu Bambey mun nañu wax amul rajo. couverture maladie universelle ay bor rek la leen fi bàyyil. CMU mu nekk programme bu nga xamante ni état moom moo ko tegoon état bu mu ko tegalee bu mu ko tegee c'était pour vraiment mun a dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñooy doog a juddu euh, ba am juróomi mais gis nañu ne seen boobu aussi état taxawaay bi ñu ci waroon am en tout cas pour le district sanitaire de Bambey amu ko parce que on a depuis comme ni ñu ko waxee euh, remboursement yi demeewul nu mu war a demee district sanitaire bu Bambey ñu ngi ko amee xaalis bu bëree bëri. ñool ñii di ndawal docteur yi liggéeyee ci sant de santé bu Bambey nee nañ duñu war naa sotti benn yoon seen bërëbu fajukaay bi ñu koy def mbëbës mbaa ñu koy def ab décharge boo xam ne lu waay indi dugal fa.